ba ay ja wàccee muy jooy mook abu Aboubacar Omar ñëw ne leen lu ngeen di jooy wax leen ma ko su ma ko mënee jooy su ma ko mënul jooy jooylu mu ne ko daal maag yàlla bu jiitu la jiitulutoon yërmande ci ñun tëkkoon nañu ci mbugalam lu toll ni fii ak sajaada bi ñi laal ci kanam maanaam lu jege daal moo tax kon loolu lépp terewul yonent bi dafa koo feeñal maa kaana li nabiin an yakuna lahu asra hatta yusxina fi ard balaa yi ja jeex te loolu tàng na jir kon bu ñëwee muy dëgg bu dal ci ay tànkam wala mu dal ci mbokkam wala mu dal ci boppam da koy da koy nangoo dékku kon tamit njiit noonu lay def bu la dëgg dabee taxawal waaye nag bu dëgg dabee sa morom nga nang nga nangoo taxaw ak moom waaye bu dëgg ñëwee dal sa kaw nga ne doo ko nangu tey borom kër yu bari bu leen seen doom waxee dëgg ñi mer man doom du ma wax dëgg foo ko te wala sa soxna wax la dëgg nga ne man jigéen du ma wax dëgg wala nangam ak nangam ak nangam dëgg pousseb yàlla la xale mën na koo gis jigen mën na koo gis sa seut sax mën na koo gis waye nit ku bax bu ko tabé da fay nango taxaw su ko defé kon nak loolu len yàlla wax non mu nek lu leer motax mu ne qul wax len ne atiyoo na ngeen topp laa yàlla wa atiyoo ngeen top rasul sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam fa in tawalaw suñu dëddoo fa innama alayhi naka warna na bi ma xumila lo xamne togef nako ko muy jotal wa alaykum warna len ma humiltum lo xamne togef na len ko muy muy top ko wa in tutiuhu su ngeen toppee ko moom yonentu bi rek tax doo ngeen gind bii garanti yonentu rek moo ko am ku bëgg a jub toppal sayduna muhammad wa ma ala rasuli déet di war yonentu bi illal balaaxu nde rek jotal mu biinu gay aji biir jotal na ba mat sëkk bañ na ko keroog ba malakal mawti jël roxo ga dafa ne ko seedeel ma ne jotal naa nga door a jël sama roxo gi mu ne ko seede naa ne lii yàlla wàcce woon ci yow yëpp mat na mu door jël roxom ga kenn du sayduna muhammad bi ci tegu nag muy wa adalaahu lazina amanu minkum aaya la joo xam ne dëxalab yàlla la bum ñu dëxal yàlla nag teg na ko fa waaye ñoo ko jëlut yàlla dafa yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla di pratiquer lislaam danaa leen donnaloo suufu yéeféer yi lu si àdduna bi yor suuf si bi ci tegu tamit danaa leen jox alal ba ngeen doyal ma ma léegi tamit ngeen nekk danaa leen jox tamit sécurité du ngeen amati benn problème tey nag bu ñu demee tey ñett yi yëpp yàlla dëxal ñu ko te te maanaam gisuñu ko gis nañ ko ñoo ko jëlut yàlla jox nañu ko ñoo ko jëlut li tax li lay xamal ne yàlla jox ko ñoo ko jëlut yàlla jox nañu ñett force yoo xam ne ku ko jox ku ko am ca kanam rek nga war a nekk waaye waroo nekk ca gannaaw soo nekkee ca gannaaw rek yaa fa teg sa bopp ndax ñetti force yi yonentu bi rek moo ko am ak njabootam bi ci njëkk yàlla jox nañu mbooleem kuréel yi fi nekk di woote ci mbooloo yonentu moo ci ëpp njaboot mooy jullit ñi ñoo gën a bëri ñoo gën a bëri yonentu bi am na njaboot lu toll ni milliard ak genn wàll gu teg tuuti loolu nag boo doon tey partagé par mbooloo yi te Moussa am Isa am ko keneen am ko loolu kenn amu ko ci kon yonentu yonentu moo gën a bëri la njaboot te innamal kasratu quwwatun maanaam bëri ci boppam fors la bi ci tegu tamit yonentu bi njabootam ñoo ëpp xam-xam ñun la yàlla jox maanaam xeetu yonantu bi ñoo ëpp xam-xam njabootu yonantu bi ñoo ëpp xam-xam ci àdduna lu tax téere bi nga xam ne moo ëmb xam-xam way njëkk way mujj ñoo ko moom muy alquran bi ci tegu tamit njabootu yonantu bi ñoo ëpp alal ndax ñoom la yàlla jox pétrole bi ñoo am pétrole kon nag bu la yàlla joxee pétrole muy muy koom bi gën a euh, bëri ci àdduna bi jox la alquran muy téere bi ëmb xam-xam yépp jox la maanaam mbooloo moo xam ne yéen a gën a bëri su ngeen nekkee ca gannaaw yéen fa teg seen bopp waaye yàlla moom wàccoona ak ñun moom moom lay wax si nii muy dëxal gi kon dëxal gi yàlla jox nañu ko muy lu dëggu waaye ñun ñoo ko jëlut ku ko ci jël tamit nekk ca kanam ko fi bàyyi tamit nekk ca gannaaw rek ñu ko jël ka a néew di ko pratiquer ña ca kanam moo tax mu ne waa adda na laahu yàlla si na ña nga xam ne amanoo gëm nañ min kum lenn ci yéen moo tax ñenn ñi jàpp ne am nañu ko jël ba ña ca kanam ñu def ko muy minam tabiit wa amiloo ñuy jëf saalihaati jëf yu baax yi muy farataaki naafile lu leen yàlla dëxal dëxal na gëñ ne la yastaxlifannahum waat na ne dana wuutal leen fil ardi ci suuf dana fi jëlee yéeféer yi ngeen not leen donn seen suuf ya kamastaxlafa naka la huutalee lazina ña nga xam ne min qablihim jiitu woon nañ leen nam huutalee woon daawud ak suleymaan suufu yéeféer ya huutalee woon ko muusa ak haruna suufu firawna ya ba donn leen loon misra te foofa ay yéeféer a ko moomoon wala yu makki na na dana dëgëral leen lahum ñeexal leen diinahum seen diina ji dana ko dëgëral fu waaye neex noddu fu mu neex liqaam fu la neex sampu jàkka allazi mooy diina ja nga xam ne irtadaa gërëm na ko ndax inna diina indallaahi al islaam lahum ñeexal leen wala yu baddilanahum dana wattee leen min baadi xawfihim gannaaw seen ak ragal am nan dana leen jox sécurité yaabuduuna nii mbir moom danañu jaamuma wala yusrikuuna te laa yusrikuuna duñ bokkaale bee ci man shay an dara waye gannaaw bima len joxe li wa man kafara ku weddi baada zalika gannaaw lolu fa ulaayka yoy gaay hum ñom al fasiquna ñom di way génn top ña ñoy kacior ya xolal dehal bi ni mu deggo waye ñi nasax sagan ba tabarakallah lu ci ëpp ci ñu ci ñun la duut ci yàlla yàlla lim wax mom dara du ko tok li nak aaya bi li ko taxoon wàcc yaronte bi dafa tok sallallahu alaihi wasallam ku ñu tuddee adu ibn hatim taa baayam milliardaire la woon waaye moom doom ji gëm na yonantu bi sallallahu alayhi wa benn waaye ñëw ne ko dëgg-dëgg sonn nañ dañoo ñàkk ñun ñi la gëm ñoo gën a ñàkk ci dëkk bi ñàkk nañu ba amuñu sax lu mën a suukar kafe mu toogaat tuuti ci même jotaay bi keneen ñëw ne ko dañu ñàkk sécurité ba koo ci gis buy dox guddi bëccëg mi ngi yore ngànnaay saxaba yi noonu lañ daan def booy julli sa yaa ngi yaa ngi taxawaay sa ngànnaay li ko mooy rek saay-saay song la def la lu bon kenn musul ñemee dox moo xam ci guddi ba bëccëg te lu dul yaa ngi yore sa ngànnaay loolu lañ daan loolu lañ daan dund léegi nag yonentu bi dëxal leen ne leen yow mii di ma tawat ñàkk maa ngi lay waatal ne sama borom dëxal na ma ne yéen ñi ma gëm jamono dana ñëw yàlla dana leen jox koom-koom ba nit dana yore wurus wala mu yore xaalis du am kum ko sarax ndax kum koy jox kooka du ci am soxla mu ne ko ñaareel bi yow mii di tawat sécurité maa ngi lay xamal ne nit dana bàyyi koo yaman ñëw fii ba ci màkka wër kaaba gi aj màkkaam ñibbi te du ragal benn du am benn problème xanaa yàlla rek lay ragal yàlla mi ko tax a def loolu rek lay ragal loolu yegg nañ ca tey juróomi continent yi ci àdduna bi yëpp ay délégation ñi ngi fay bàyyeekoo di aji amuñu benn problème kon sécurité bi am na ragal gi ñu amoon tamit naan foo foo toll yaa ngi yore sa ngànnaay taxaw loolu tamit sécurité bi dàqu na ñi fi ragal sécurité yëpp tey di yore seen ngànnaay di wattu seen moroomi julli ñoo leen koy teg caay-caay gaag yàq gaag lekk sa alal ak agressé laag lépp boo càmbaree waaga turu turu julli la lay jox waaye duut keneen su ko defee kon nag dëxal boobu yàlla dëxale woon am na ñun nag ñoo na sax yaafus ba demuñu jëli ko waaye buñ ko jëli woon kenn du ñàkk dara yàlla jëmbat na ci ñun koom-koom boo xam ne buñ ko utiliser ñëpp am wala nga xam ne am-am dana gën a bëri gën a sakkan am-am bi yàlla def tamit bu ñu ko organiser woon ci wàllu asaka yi ci wàllu sarax yi su boobaa tamit ñi ñàkk danañ du njëkk seen ñàkk ga ndax ñi am danañ danañ nangoo booleeg ñoom lañ am waaye nag bi ñu yàlla dëxalee xéewal gu rëy gi ñi ko njëkk a weddi muy wa man kafara ba'da zalika fa ulaikumul fasiqun mooy ñi rey Sayyiduna Usmaan ñoo ko njëkk a weddi jullit ñi keroog ba ñu ba ñu yëgee ak nasax mooy keroog ba ñu ñàkkee benn kilifa gu ñuy déglu koo xam ne waawam mooy waawu ñëpp ba ñu ñàkkee kilifa goo xam ne bu teree ñëpp topp ca gannaawam keroog lañ commencé am ak na sax tegu suñ kaw ba tey waaye bi fi yonent bi nekk sallallahu alayhi wa sallam asaka yi moo daan yeble ñu dem di ko toppatoo ji bu ñëwee mu seen ñu néew doole yi jox leen ko kenn yëgatut Aboubacar nekk fi loolu di dox Omar ibnul Xataab nekk fi loolu di dox Ousmane ñëw toog ci xilaafa gi naa naafiq yeeg yàqkat yi ruuxalante ko ba nu uma ya lay faral nangam ak nangam coow la bëri ba ñu fekk ko këram gaw ko lu mat ñeent fukki fan ak juróom-ñeent fekk ko mu jigi ñi ñi maanaam euh, euh, jéggi miir bi traverse ko ñëw fekk ko mu jàng